tey ñëw taxu fi ci sunu bés bi entre Accel Group ak euh, Global Trading di rafetlu seen taxawaay comme ni ma leen ko waxoon sànq rek ñun suñu concept tey lëkkaloo Accel Group bu Turquie ak Global Trading bu senegal pour def import export la ñu Sénégalais yi doon demee fee di dem di uti ñu mën a jël société yooyu teg ko fii ñuy liggéey ak opérateur économique sénégalais yi ba xam ni ñoom duñ mën a demati. lu bari dem di jëli foofu seen koom-koom tey looloo tax sama partenaire bi euh, monsieur Younous Ete ñëw pour xool nan la ñuy accompagner opérateur économique yi ak homme d'affaires sénégal yi pour ñu xool nan la leen di jàppale suñu deuxième point xool comme li ngeen di wax ci côté mbënn mi nit ñi def immigration di dem ci géej gi mun a créer emploi Sénégal yi toog fi jeunes yi gis ci seen bopp tey looloo tax a yëkkati global trading ma indi ñi ci tàng-tàng bi nga xam ne tey yi Sénégal problème boobu am nañ ko kenn nelawatul nit ñi ngi jaar ci ndox mi parce que liggéey amatul nous on va créer de l'emploi pour les jeunes pour le Sénégal émergent ci kaw loolu buñ ci jógee dina am loo xam ne dañ ko fësal bépp sénégalais boo xam ne bëgg nga liggéey at Assel Group at Global Trading ñi ngi teg benn projet boo xam ne ànd ci at Fortines Group boo xam ne sunu mag Abdoulaye Dia moo ko dirigé pour ñëw soutenir sénégal yi ànd ci at suba teel et te bu boobaa beneen concept la dinañ ci waxaat incha allahu rabbi maa ngi leen di jaajëfal. est am nañ sta am ay jeunes yoo xam war nañu mën a liggéey mais est moyen yi pour mën a réaliser loolu yëpp. ñun tey loolu du tax a jóg man leeralal benn affaire turki yi privé bi état bi da leen di jàppale kii Asel groupe privé la day dem ci état bi jël fonds bi mais fonds yooyu buñ ko jëlee il nous faut des garanties de l' état sénégalais ma leeral ko tey mën ngeen ñëw ñu jox leen suuf. état bi jox ñu suuf nee ñu tabax leen ci créer leen ci emploi bu boobaa mun nañ ci liggéey te bu ñu jëlee projet boobu dem teg ko yóbbu ko état turc dañ koy financer loolu moo waral coopération turc Sénégal. ngay wax tamit ne nekkul ku ñëw rek ngeen liggéey moom il faut ngeen am ay këyit yu wane ne structure bi voilà nga am sa registre de commerce am sa ni am société boo xam ne bu taxaw la ñu mën la jàppale. léegi jeune bi amul côté boobu tontu naa ci jeunes yi amul loolu ñu suñu concept bu ñu commencé liggéey ba mu taxaw pour créer emploi boobu dinañ xool ñun li ñuy gañe dañ ciy def social social bi mooy ma fexe indi tey at man sama partenaire bi ñuy indi loo xam ne dañ koy jëlee turc wala fii lañ koy defaree jeunes yi di ci xëy di ci dem di ci yëngatu mais pour l'instant du financement boo xam ne dañuy jël jox jeunes yi xaalis ñu taxawalee li ñu war a taxawal ba pare entre ñaari dëkk yi liggéey bi tàmmale lépp luñ ci am ci bénéfice xaaj bi ci social la jëm macha allah à peu près mënuñu la wax tant que commencé guñ mais daal yëgal naa leen loo leen am loo leen indi boo leen ko tegee incha allahu rabi dañ ci taxaw ci côté jàng ci côté électricité côté batiment côté éducation lépp ñun pare nañ ACEL group at global trading at Fortinet group jàppale opérateur sénégalais yi pour le Sénégal émergent vu le Covid tey loolu mooy sommet Halal Expo samay xalal expo bi dafa am expo at warlu xalal simit warlu xalal bi mooy dem nga defi biitu bii ñu am ay partenaire ren bii Covid bi novembre bii la waroon am le cinq bii mais dañ ko pousse ba le 21 décembre mais n'empêche que sénégalais yi nga xam ne opérateurs yi inscrits yi pour jënd seen package pour dem incha allah warlu xalal simit bi dina am du 21 décembre au 24 décembre à Istanbul. bépp opérateur ak homme d'affaires boo xam ne bëgg nga ñëw teew ci loolu nga approché ñu nga ñëw inscrire inscription yi mi ngi nekk en ligne ba léegi incha allah mais expo bi buñ koy wax mooy amul stand ren expo bi en ligne lañ nekk parce que Covid bi moo tax mënuñu jël di jaxase nit ñi ñi nekk di jaay mais en ligne lañ koy def mais warlu xalal simit dina am incha allah. monsieur Sow pour terminer. yoo ñu bëgg a hmm. ni ñu lijjantee registre de commerce sax wala nii ne yaa xamuñu ko nañ leen def ak moo tax maye la on fait appel à tous les sénégal ku nga xam ne tey bëgg nga am registre de commerce ak nii yaa ah, boo ñëwee ñun dinañ téye sa loxo yóbbu la ba chambre de commerce chambre de commerce loolu la fi nekkee nga jël say kayit registre de commerce nii ah, kenn du ko defal kenn dangay ngay waaxu te foog naa jeune bu bëgg a liggéey. même booy jaay gerte caaf war nga am registre de commerce am ni yaa ah, am import export ci loolu boo ko tegee loolu lañ la war a mën a jàppale ci la ñuy mën a ràññee kan moo am société ak comme bu ñu ñëw di liggéey chambre de commerce la ñuy woo ne ko est-ce que monsieur X xool registre de commerce NINEA bi est-ce que c'est valable c'est comme ça qu'on travaille ku indi registre de commerce NINEA bu ñu ko tàppee dañ xam ne ndax kii société bi ça existe y a l'adresse exacte ñu mën a jël lëkkaloo.